asalaamualeykum marhaban bikum dal leen ak jàmm ma xëyati ñëwati waxati ngeen déggati li yéenekaay yi xëyati bindati dooree ko ak journal Vox Populi mi xëyee waa ji lëmbee réewum Sénégal ci jamono ji borom waat gi waaw Alioune Sall journal Vox ne la wérte wóor daal kookee di Alioune Sall gannaaw ba nga xamee ne daa dinay démissionné tekki ndombal tànkam ca caisse de dépôt et de consignation ab kaamil de la indi daal di waat ci loolu vox populi li di koy jox kàddu moom Alioune Sall ne billaahi waat naa ko ci alxuraanul karim ne lii ñu may jiiñ defuma ko benn yoon te lii nga xam ne wax nanu ko ne jot naa lu toll ci deux cent cinquante mille dollars yu jóge ci Petro-Tim alin Sall ne loolee dara amu ci te tamit awma benn pourcentage di maanaam ab wàll ci benn société bu yëngu ci wàllu pétrole nekk ci biir réew mi lee ci loolu rakku njiitu réew mi Alioune Sall ne li daal mooy lii nit a ko yëkkati rek ngir daal di yàq sama der bile daal di may tilimal ba ma tilim waaye li wér te wóor sàll ngaari ne li ci kanam raw li gët te li wérte te wóor mooy yàlla dina àtte de ba léegi as yéene kaay daal di xëyee kookee di Alioune Sall de borom waat gi ba tey amu ne kookee di Alioune Sall daal di nay waat ci alxuraanul karim ne la koy jiiñ ca mbirum Petro-Tim googee defu ko de ba noppi daal di tekki ndombal tànkam ca caisse de dépôt et de consignation ga nga xam ne moo ko jiite woon journal Les Échos ah, daal di koy feelu ah, ne la wér te wóor daal mooy sàll waaye la mu def daal moo di daal di tourner aw virage su cent quatre-vingts degrés maanaam soppar ñu yëf ya daal di mujjee nag di victimiser wu ah, def ni koo xam ne maanaam moom la ñu tooñ de ci loolu aar li nu bokk moom mel na ni waat googee yëngalu ko de yëngalu ko benn yoon ndax ci jamono ji ñoom la ñuy rek moo di ko koo xam ne tudd nañu la ci mbirum pétrole googee au lieu nga nekk fi naan da ngay jëli kaamil di waat demal nga wuti avocat daa ni moo gën a wóor nag ci loolu journal l'observateur moom jàppee li rek nib comédie ba tax mu duppee ko la mauvaise comédie de Sall ci loolu journal Youssou Ndour gi dañu xamal ne euh, Sall junior daal la wér te wóor mooy li muy def nii ay nax sa xandang kese la euh, comédie kese la nu ko mën a jàppee de ba tax journal l'observateur daa di jox kaddu euh, kii di Serigne Mor Mbaye di jàngale kat Serigne Mor ne jëf ji nga xam ne Aliou Sall def na ko mënees na koo duppee ab sacrilège de maanaam fowee alquranul karim bi nga xam ne dafa sacré a ci loolu a kookee di docteur Momar Thiam moom ne moom Aliou Sall mii daal ab acteur film kese la te lii muy def nii tegu ko fenn Iran Ndaw moom waaw Iran moom ne la wérte wóor daal mooy alxuraanul karim bi lu ci waay di waat daa war a doon dëgg de <laughs> aka leer journal le quotidien le quotidien moom xëy dañu xamal ne la wérte wóor daal mooy Alioune Sall moom mu jeenaa daal daa di démissionné de ca caisse de dépôt et de consignation aga nga xam ne moom la jiite woon de te moonte de journal le quotidien nañu moom Alioune Sall lu yàggul dara moo fi waatoon ne du mës a démissionné waaw waat booboog bii moom lu leen wutale source a ba tey des ci mbirum démission gu Sall googile daa di dem ba ca opposition ba jox kàddu kenn ci ñoom muy Babacar Gueye waaw Babacar gay ma woon borom PDS Kaffrine mu ne daal mooy naka noonu moom Babacar Gueye daa di ubbi sox ya sotti xal yu tàng jër lees mën a duppee sax ab volcan ci kaw Alioune Sall moomi ak nguurug moom Babacar Gueye ne li wér te daal mooy gis nga lii di pétrole doon na loo xam ne safara su mu taal lii nga xam ne moo fi jot a génn nii tuflit ci wax ju bëri ji nga xam ne nguurug Macky sàll gii ñu ngi ko fiy wax la wér te wóor mooy loolee Babacar Gaye nee na doyul ngir fay lakk gi doyul ngir fay lakk gi de te gis nga Aliou sàll mi bu yaakaaree ne démissionné ci caisse de dépôt et de consignation dina tax coow li wàññeeku Babacar Gaye ne door na loxoom ci ëkk li wér te mooy Aliou sàll mi dafay gën di yokk xar mi karaw te sax nag day gën a tax rek askan wi ci jamono ji gën a bëgg ñu indi leen ay leeral ci mbir mi le ci jamono joojee nga xam ne nguur ak kujje ñu ngay xuloo ka mbi fa wante ci mbirum pétrole ak gaz goo gile mel na ni la nga xam ne moom la ñu doon rumandaat muy yokkute ga a jëm ci mbirum carburant gi daa dinay doon loo xam ne dëgg lay doon de daa dinañu koy dëggal de ate ci loolee ñuy xam le ne sax de ci benn fan ci weeru juillet gi la ñu fas yéenee yokk lépp lu jëm ci mbirum tarif électricité ak carburant de courant ba yokku carburant ba yokk ci loolu journal libération ne la wérte wóor daal nguurug Sénégal gi même bu fekkee ne du appliqué mbir mi ni nu ko waxee nii la wérte mooy mbirum courant bi moom subvention bi ñu ci doon def te mu toll ci fanweer jàpp ñeent fukk ci milliards ci sunuy koppar fa la ñuy desandi de te bu boobaa mbir mi day gën di cher ci askan wi xam naa ne moom xelu askan wi ngir mu dal dina jafe lool ndax mbirum courant ak carburant bu yokkoo moom ah nar naa metti de leneen lu nar a metti journal Les Échos xëyee ko moom diñu xamal ne li wér te wóor daal mooy gis nga lii di loi de finance rectificative bu 2019 dalul xel de te raglu na lo la wér te nationale bi wàcc na de wàcc na wàcc gu am solo sax ñu xayma ko ci lu toll ci juróom-ñett fukki milliards ak ñett mu daal di jóge ci quatre mille soixante onze milliards daal di daanu si ba trois mille neuf cent quatre vingt huit milliards waa lii moom rës na di ba tax na ñuy xamle ne nguurug Sénégal fas na yéene daal di yokk prix de bokk na ci loterie nationale sénégalaise waaye tamit lépp loo xam ne ñu ngi koy jaay mu jëm ci xeesal dinañu ko fas yéene yokk ah waa boobu de na njëriñ moom moom na seer rek mu ngoog bu ko defee record ga ak stade yéene kaay mi xëyee coupe d'Afrique des nations ak gaynde yu Sénégal yu war a football ni ki alxames journal bi di laaj diggante ak yi nga xam ne mooy Ismaïla Sarr ak Keita Balde ak kan moo ciy tëb la wér te daal mooy jinne bu bëggee Dakar ku yëg daal Sadio yegg si na la wér te wóor dina toog waaye nag alu ci mënti am coach on ne change pas une équipe qui gagne ma daa di jógee noone daa di tabbi ca làmb ja dooree ko Sa Thiès ak rëg-rëg mel na ni wax jaa ngay wéy de ndem tontu du forox gannaaw ba nga xamee ne aniki démb kookee di Sa Thiès doomu Double Less rakku Balla Gaye daa xam xamle ne kooke di rëg-rëg moom ragalu ko de te bu ko laajee mu jël moom rëg-rëg daa na koy tontu de nee na ko gis nga Sa Thiès li wérte wóor mooy boo paree tey man pare naa nañu sëgg waaw jàmbaar ni lay mel ba léegi ci beneenu combat a muy combat kookee nga xam ne mooy Lac de Guiers jaato digganteem ak kookee di Boy Niang 2 Zale moom ci jamono ji mel na ni mayul kookee di Lac de Guiers 2 fu mu yàkkeew nakam de ndax nee na ko li wérte wóor daal mooy gis nga lag yow dangaa war a bàyyi siisu gi ak rasu gi dafa jot ngir nag nga daal di song nag def li nga war a def Zale ne la wérte wóor daal mooy gis nga ab faay rek bu ko Lac de di may kookee di booy Niang 2 dina ci daal di porox ndollu te dina ko def lu dara jarul lu ci mënti am man moom maa ngay sori foofee ndànk daal di soobu wàcc journal l'Observateur mi xëyee lu doy waar kii ab moo du la dee Amor Ndiaye lay wuyoo moom gannaaw ba nga xamee ne daal nañu koy mayub ñetteel boo xam ne ab élève la di jàng te mu nangu woon lépp la nga xam ne waxoon nañu ko ko moom Mor Ndiaye xëy-xëy benn bés ne dafa bëgg a consommer ab mariage yëf ya sottiwul mu daal di jël ab fetel dem ca kër gorom ubbi fa ay soox may laaj sa këri goromam ah, ku fa ubbi soox ndax ñàkkoo sab soxna lu ci manti am lu mu manti doon lii doy na waa